Salam salam wa Oser Média ñu ñëwaat taxawaat defaat leen benn portrait d'un artiste tay nak ñu dem ba benn dëkk ñaari gaar à 70 km de Dakar fi ñu wax Thieskay benn dëkk ñaari gaar Kadior Kadior yi dem séti fa ki nga xamante son vrai nom trop dëgg-dëgg mi ngi tuddu Jibril Ba waye ñu ko gëné xam ci son nom d'artiste Djeba Djeba nak nek artiste sénégalais bo xamante machallah macha arène bi lay def ak li nga xamante moy afro trap ak li nga xamante moy mooy mbalax beat lool lay jël modifier ko tek ko ay son yo xamante ni am solo la Jeeba nag ñu gën koo ràññee ci li nga xamante ni moom mooy musique ba Jeeba bu yëkkatee kàddoom lépp lu muy way rek boo xoolee base bi ci 90 pour cent li muy way wala 95 pour cent sax ci love lay woy mu nekk nag un boo xamante ni moom mooy borom on on on borom yeyeyeyee macha allah voix bi am lor harmonie su yëkkatee kàddoom rek nga xamante ni kii macha allah sama doomu baay bi bàpp la jéeri àdduma ca nag ya Jibril baa ñu gën koo xam ci Jeeba le natif de Thiès mu nekk nag un boo xamante ni franchement. il cartonne fort Sénégal ñëpp d'accord nañ ci li nga xamante ni moom lay def lépp loo xamante ni day koy génn ci ay it rek day nekk loo xamante ni gars yi dañ ciy bàyyi xel rajo yeeg télé yeeg yëpp dañ koy teg mu nekk artiste boo xamante ne nag macha allahu rabi am na fi am na fi taxawaay bu rëy rëy rëy am na nag li mu xamante ni wooyam boobu naan la mu saf ah, dama maanaam defoon na clip boo xamante ni ca clip boobu bëri woon na lool ay coow ndax image yi nga xamante ni moom la defoon ci clip li xawoon na ko indil ay coow ci biir réew mi waaye finalement ñëpp mujj nañ comprendre finalement il s'est excusé wane ni moom artiste la rek yëfu aar rek lay def mu nekk nag un artiste boo xamante ni macha allah depuis mu jàpp yoonam ba léegi wàcc ko Djibril Ba Djibril Ba ñu gën ko xam ci Jeeba mu nekk nag un artiste Sénégal boo xamante ni ak arène bi lay def nekk un boo xamante ni franchement il a une très belle voix ba pare li muy def macha allah mi ngi koy teg ci yoon kon nag waa Oser Média tey dañuy dañuy taxaw seetlu dem ba Thiès benn dëkk ñaari gaar fekk fa ki nga xamante ni mooy Jeeba waaye turam dëgg-dëgg ñu gën ko xam ci Djibril Ba muy sama doomu baay moo xamante te ni ki nga xamante ni heure bu génnee son rek son bi it lay ne tey nag Oser Média defoon benn taxaw seetlu jël voyage romb Pout romb fi nga xamante ne mooy àllum kaañ dugg dëkk bu mag boobu nga xamante ne mooy Thiès artiste yu bëri dëkk boobu meññi na leen seeti fa ki nga xamante mooy Jeeba ñu gën ko xam ci Djibril Ba un artiste boo xamante ni macha allah mi ngi jàpp yoonam te il est constant sans su mi ngi génne yoo xamante ni gars yi dañ ciy bàyyi xel Jeeba Bapula Jéeri ñu ngi lay ñaan yàlla mu leeral sa yoon en tout cas waa Ozimédia ñu ngi lay béggee di la encourager di la wax ni la meilleur reste à venir jàppal rek dina ñëw incha allah.